بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo santal yàlla bu baax di di ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam day ñaan yàlla mu nangul ñu bu ñu xoolee mboolem xeetu liggéey yi am ci àdduna liggéey bu nekk am na période boo xam ne ci lay gën a doxe moo xam boo jëlee lu mel ne ñuy ñaw am na période boo xam ne ci la seen ñaw di gën a bare soo jëlee nit ñu am yeneen métier di réparer mbaa yu mel noonu ku nekk daal am na jamono boo xam ne même bu dee looy jaay la am na période bu gën a doxee période boo xam ne bu jotee moom loo yor tam koy jaay te loo ko jaay tam jënd ko noonu mu amee ci liggéey adduna yi noonu la amee ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi dafa am période yoo xam ne yàlla daf ci yokk li muy fay loolu tax mu def ko mooy daa xam ne suñu dund yi daa gàtt dafañ jëm ëllëg dara du fa doy comme nag moom daa bari yërmande moo tax mu wutal ñu ay occasion yu baree bare bare ci dund gi yoo xam ne luñ ca def mën naa néew waaye yi woo bari lool loolu nag ak jullit da cee di profité bu ñëwee boo xoolee julli yëpp baax waaye am na ñu gënante ginnaaw bu julli da jàll dañuy wax ne la julli guddi moo gën ci mboolem xeetu julli yi naafile yi naafile yooyu itam li muy bari bari bari safa ak witar muy rakka ak witar ci boppam rek moo gën ci mboolem xeeti naafile yi xam gis nga foofu am na gënaante gis ngeen yiw wax ci julli yoor yoor su dee woor weer koor gis ngeen am na woor ci boppam na am bis yoo xam ne woor ko moo gën yeneen bis yi donte bis yëpp baax a woor ba mu woor lu mel besu bésu tam xarit maanaam ba suba sa bés yoyu woor bi yomb tam woor beneen bés umra itam ya, li muy baax baax jamono bu nekk mën ngaa umra waaye umra ci weeru koor moo ëpp doole fuuf nga umra ci budul weeru koor ndax yéen tamit neen ko um jëf umra ci weeru koor day mel da ngaa aj màkk ànd ak man jam yàlla yépp noonu la demee ba ci julli gi ñuy def nga jullee fii léeg-léeg nga jullee feneen mu ëpp ko tuyaaba màkk rek ci ne boo jullee ben rakka day yem ak téeméeri junni rakka ci fenen loolu yalla moko def ngir may di nit bàyyi occasion non la ko defee ci bis yi sàkkal ñu wéro koor sakal ñu laylatul qadr ñu gudd go xam tam itam war bu jotté ñu profitoo ci ndax lañ ca mëna amé man nga jaamu yalla juróom ñet fukki at ak ñet da do ko ci am ndax yalla mo na xayru min alfi shahri mo ko ba ci ñaan yàlla ci boppam waxtu wu nekk jàmbi mën naa ñaan yàlla waaye am na waxtu yoo xam ne yàlla nee na moo gën ku ñaan sax mën naa am ñu nangu la ca saasa bokk na ci lu mel ne soo jullee ba àgg ci sujjóot boo sujjóotee foofu yonte bi neen di leen faral di ñaan yàlla bokk na ca waxtu ay bisub ajjuma ginnaaw tàkkusaan jëm timis foofu itam luñ la jàmb di fa ñaan ndax yonte bi nee na ajjuma waxtu boo xam ne lu fa waay ñaan yàlla yàlla may la ko bokk na ca jàmm bi wooree bay dox su wooree bay dox itam foofu itam ak ñaanam lu ñuy nangul bokku na ca bu nekk ci tukki bu nekk ci tukki bu ñaané yalla yalla man na ko nang wala waxtu ngeel waxtu ngeel itam yonente bi moo ne guddi gu jot bo xaje ko ni ñepp xaj xaj bu mujj ba yalla day wàcc ba ci asamaan di ñu tim naan man a yàlla maa ngi ni jégalen lool ana kan mo may jéggulu ma jéggel ko ana kan moy musul ci man ci lu mu ragal ma musul ko ana kan mo may ñaan ma may ko kon jamono yooyu yëpp jullit bi war na koo xam di ci farlu di ci farlu gannaaw li mu am ci ak dund xamul gudd na xamul gàtt na la muy jaamu yàlla xamul des na nangoom déet jamono yi nga xam ne nag bu ñëwee jota yàlla dafay ful ay ay tuyaaba di ci tabe lool war na ciy profité bu baax a baax kon ñaan solo ñaan lu am solo la rawatina waxtu wu ñuy dog mbaa bu ñu wooree mbaa bu ñu nekkee ci tukki mbaa bis bu ajjuma ginnaaw tàkkusaan mbaa bu ñu nekkee ci julli ba àgg ci sujjóot bàyyi jox ko imam di xutba ci bisum ajjuma nekk ci kaw min barab diggante yëpp yi sopp fa ñaan la te ñaan it lu mu mënul amut yàlla mënu ko digal ne def leen ko ñaan ñaan leen ma ma may leen bari waa loo xam ne nit a koy bëgg mu jafe lool te xamut ne amoon na lu yomb yomb loo xam bu ko defee mën yomb te mooy ñaan waaye ñu ba dañ koy fàtte ñu ba dañ koy fàtte te ba bu ngeen ma may leen kon euh, mat xel baax ci suñu mbiri ak ci suñu mbiri bu ñu xoolee borom dëkk bi li bind ci ay xasida li bari bari bari daanaka la ci ëpp ay ñaan la ci ëpp ay ñaan lu ne ñaan na ko yàlla lu ne ndax xam ne yàlla daa tabe te du gàntal dara te lu ko waa ñaan bu may la moo tax moo tax itam ñu gis mayim am ndax moo ko ñaan yàlla kon ñu bàyyee xel ñaan bu baax a baax euh, su ko defee fi ñuy jeexale mooy yenn mbir yoo xam ne day yàqu koor li tax ñu koy lim itam mooy léeg-léeg ñu dégg muy lim yoo xam ne bokkul waaye yi ñuy bëgg a wax mooy yi nga xam ne moom bu ñu defee kon day yàqu yu ca bokkul rek xamal na bokku ci ba ca njëkk moom mooy ku firi yéeneem woor ba ca digg bi nga ne maa yéene woon maa yéene woon loolu ku ko def même bu fekkee lekkoo naanoo dem sa koor moom yàqu na bokk na ca lekk ak loo mën di lekk nag ndax mën naa am nga lekk loo xam sax du lu ñu lu a lekk lu mel ne ku wan na ab bouton mbaa wan na aw xeer dégg nga lu mu mën a doon boo ko lekkee mbugg sa biir sa koor yàqu na naan tam noonu ak loo mën a naan même boo naanoon essence nga xam sax du luñ baaxoo naan waaye comme naan nga ko mbugg sa biir moom itam sa koor yàqu na kon lépp ni lekk mbaa mu naan ko na jàpp ne kooram yàqu na tux cigarette moom itam day yàq koor loolu borom xam-xam yépp nañ ci lépp xam dafa ci sa gémmiñ mbaa mu jaar ci say nopp mbaa mu jaar ci sa bakkan lépp lu jaar ci bakkan mbaa mbaa mu jaar ci say say nopp wala sa gémmiñ loolu tam da yàq koor wàcc tam ku ko def te tey ko wàcc moo yaa ko loocu moom itam boo ko defee xamal ne sa koor yàqu na képp ku sëy soxnaam mbaa ku sëy borom kër mit moom it da yàq koor jigéen tam bu wooree gis reegal mbaa mu gis deret wasin moom itam koor ga yàqu na bis boobu da koy fay ba tey itam mani mu génn moo xam ne boroom moo ko sabab lu borom boo ko sabablu ba mu génn moom itam day yàqu ko bu fekkee sabab bi woo ko nag moom du yàqu sa koor ba tey itam masiyu moo xam ne borom ba ko sabablu it moom it ci ngirum Maalik waxoon nañ ko jotaay bi weesu moom itam dafa yàqu koor ku wóor ba yàgg itam mu génn ci lislaam ci bis bi même bu moom yàqu na bis boobu da fay ba tey itam koo xam ne dafay dafay dafa dafa sëgg ci lu mel na cuuraay di ko di ko suuroo di ko ñotti di ko ñotti waxuñu nag cuuraay ji xeeñ ci ne kese waaye nga sëgg ci di ko di ko ñotti sa bopp mu dugg ci sa biir loolu it bu baree man naa yàq sa koor eh, bokk na ci itam li ñuy wax sauvetage li docteur yi defal ku feebar léeg-léeg samp ko sauvetage bi tëddee ku ko sampal moom it léegi nag kooram kooram yàqu na kasaalika kuy togg itam jigéen kuy togg aw ñam ne ca waañ ba sëkk ca cin di ñor di xet mu jàll ci biiram kooku itam da yàqu ko su baree waaw xet gi lay xeeñ dong te jubloo ko ci moom yàqul sa koor waaye nga dem sëkk ca cin la nag di ko di ko kooku moom moom it day yàq koor Euh, léegi nag bu dee saxaru kese moom du yàqu koor li nga xam ne daa rëcc ba jàll ci sa lu mel ne nga doon dox ba yàgg aw weñ sarax la wala aw yoo wala ab poussière bu bare ba dugg ci sa biir loolu moom euh, du yàqu koor kon yii mooy yi yàqu koor yii nag bu ci def nit ki def fekk moo ko tey fekk moo ko tey day moom day fay ba noppi bal ko kafaara boole ci kafaara mooy mu woor ñaari weer yu mbaa mu léeg-léeg benn fukki nit ñu xiif ku mu lu ko suur lu ci te tey ko ci yii ma day day fay bis ba bu fekkee téye ko nag moom fay dong dong dong dong moo koy wax benn bis waaye du kafaara salaamaaleykum